Bonjour, monsieur Lema. Bonjour, Guillaume. voilà, monsieur, vous venez d'être élu à la tête de la mairie aujourd'hui. Quel est votre sentiment aujourd'hui euh, ben, Tout d'abord, vous me permettez de remercier tous les internautes et les téléspectateurs qui nous regardent à travers votre groupe de presse et de télévision, TS Prestige. Voilà, donc aujourd'hui, vous m'avez permis, à travers votre canava, en tant que maire de la ville de Thiès, de pouvoir tout simplement montrer mon sentiment de redevabilité, mon sentiment de satisfaction à l'endroit de toute la population soit Parce qu'aujourd'hui, si je suis élu à la tête de la magistrature suprême de cette ville, c'est en grande partie grâce aux populations qui ont cru à mon programme, qui m'ont soutenu, voilà. Et aujourd'hui, vous m'avez donné cette initiative, cette occasion tout simplement inespérée de pouvoir les, les remercier. J'ai un sentiment de satisfaction mais aussi c'est un sentiment de devoir que j'ai aujourd'hui à travers la population. Voilà. Voilà, Monsieur le maire, vous n'ignorez pas que la ville de Thiès est une ville, une grande ville mhm. et il y a beaucoup de doléances euh, voilà, qui attendent. Qu'est-ce mhm. que vous avez prévu pour, euh, comprendre Voilà, euh, nous en fait actuellement nous sommes après les élections, déjà fait que nous sommes élus et par rapport à notre programme on n'espère pas actuellement changer d'un iota par rapport à ce qu'on avait dit. Cela a été des promesses et c'est par le cours d'une grande analyse avec des experts qui ont eu en réalité à pouvoir tout simplement regarder exactement les différents coins et recoins voilà, qui ont eu des problèmes. Des fois, ce sont des problèmes de santé, des fois, ce sont des problèmes liés à l'électricité, des fois, c'est lié à l'eau, des fois, même, c'est lié tout simplement au vivre. Mais aujourd'hui, nous, par rapport à notre champ de prédilection, euh, on va se donner les moyens de pouvoir respecter ce programme-là. Parce que vous pas, euh, n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, au niveau de caisses. Euh, ça commence tout simplement à, se bousculer à travers la route. Vous voyez tout simplement à chaque fois, il y a des routes caoteuses au niveau de Thiès. Quand ça pleut, des fois l'eau a des problèmes pour tout simplement circuler et tout, euh, parce que les systèmes de canalisation ne marche plus comme il le faut. Au niveau de l'hôpital, certainement, c'est un problème étatique avec les grèves au niveau des syndicats euh, de, dans le cadre de la santé. Mais nous, on espère en réalité, par rapport aux minutes, ces gens-là qui n'ont pas la capacité de pouvoir se soigner, de pouvoir manger à leur faim, de pouvoir tout simplement les subventionner et les aider. ശരി yow bul ma jaaxal examen rek jar na ni yow xam nañ ne sonn nga jàng nga yàlla mooy may mayu la ko mais loolu dara ñi amul gënoo leen waaw parce que xale bu ndaw nga déwén mën nga defaat amoon sa papa bu ñu ne pour nga solution mais am na loo xam ne booy def man dañ may jaaxal yaa ma teree xëy heure bi mosoo ma xëy maa ngi toog di la xaar séntu woon am ak ñàkk waaw bàyyi na Hmm? question, monsieur le maire. Qu'est-ce que vous avez prévu comme programme euh, concernant le marché central de Thiès et les <laughs> de fer voilà, donc je vais, je vais, je serai bref par rapport tout simplement à ces deux questions-là. D'abord, par rapport au niveau du marché central, vous connaissez que tout simplement le marché central, à travers l'époque c'est un marché qui date de l'histoire, qui marque une certaine historicité au niveau de Thiès. Et en tout cas, permettez-moi en réalité de vous assurer. Parce que nous avons constaté, après une étude bien définie au niveau tout simplement de l'île qu'il y a une occupation voilà, exagérée de la place publique. Certainement, il y a des marchands ambulants qui passent et tout, euh, qui, qui, essaient tout simplement de par leur gagne-pain, de se battre et tout. Mais en réalité, aussi, il faut savoir que le, un marché, c'est une institution et institutions, c'est à nous aujourd'hui qui sommes au niveau de la magistrature suprême de la ville, de pouvoir l'organiser, de faire que tout simplement les passagers pourront passer sans problème, les clients pourront venir acheter leurs marchandises sans problème, et même les marchands pourront tout simplement voilà, faire tourner leur commerce sans pour autant avoir de problème. Donc nous aujourd'hui, nous comptons nous impliquer dans ce cadre-là, et on espère aussi tout simplement, comme on l'avait promis dans notre programme, à aller à la baisse des patentes. Parce que nous savons que c'est des populations peut-être des fois diminuées qui essaient de gagner leur pain. On va les aider par rapport aux patentes. Maintenant, à la question du chemin de fer, on est en train de discuter avec l'État parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est un peu dans le champ tout simplement de prédilection de l'État. Nous, allons, nous, nous sommes en train tout simplement dans une certaine discussion pour voir comment on pourra ne serait-ce recruter le maximum de tiers soit possible dans cette entreprise-là. Voilà, parce que c'est une, une entreprise qui avait joué un grand rôle autrefois et ce rôle-là, tout simplement, on peut en réalité le, le faire revivre au niveau de Thiès. Madame, monsieur le maire, on, vous remercie. Merci beaucoup à vous. De nous avoir accueillis ici chez vous. Merci. Et bonne continuation. Merci beaucoup, Diamo. Ça a été un plaisir. Le plaisir. Merci, merci beaucoup. Andre. Wah, ibu nggak mau aja saja. Dulu, deh belakang lagi. Wah, very nice. Ayo, jangan pilih gue pelajar deh. Nggak mau lii ma la tàmmal bu ñu demee ba doom nu ma koy bawee. dara ah. boobaa ci la koy defee. maa ngi muy lëmbal dina yéeme di. <laughs> lii mooy nag man dama mun fecc de fecc. fii. ma doon braqué sama yaram. maa rawoon jësit ñi ma doon doon. <laughs> yow mii. moo maa leen rawoon. dama daan beret. ah. xoolin bi. waaw xam naa fan kay te damaa ñëw rek nga may def nii di nii. yaay mooy yow. tey ay pièces rek laa am. ay fanweer fukki dërëm. ainsi de suite ainsi de suite. ndax waddul sax. wadd damay làmb daju ma dara. fu mu war a wadd. Ah! xaalis kañ la xew. Eh! damay bëgg a jommi de. indiwoo dara. tey de indiwuma dara. waaw demal ba suba. ah. demal ba suba sama bopp day métti. man kay gis naa ko mais bàyyi ma toog ba ay seen kër tey def ma dara diw ma fenn. damay tëdd nelaw sama bopp mooy métti demal ba suba nga ñëw te versement tey ba bu suba bi na ko boole. loolu amul benn problème. waaw li ma bëgg ñu tëdd waaye sax ndax man tey diw ma fenn ma sonn. yow ba suba nag danga ba compli di nga. gis nga da nga dëgër bopp te moom sama bi dafay metti kon ma dem ba suba insha allah te versement tey bi ak bu suba na ko boole am benn problème tey tax fii dama ko fomp ko fomp yow ma kaa fomp ba mu set fii léegi yow fi daante yow dugal nga dem ba suba man dama bëgg nelaw yow lay def ni ah yow iya, wëtiir nga ya, yoram nit jugal nga dem ba suba bala nga nanti ne di ma fi énervé fii apa? bul énervé amul kon dama ba suba a plus a plus a plus ah ba suba bu ya? gi génn ko moom laa lay nafsu? waaw lii de marché mu sant gis naa fi comme sa tis bi tis ban yow comme tis dari gis marché mu sant yow comme dem dal ọkọ báyìí ní ìgbẹ́lẹ̀ òdìdí ní wọlé. tey moom tey moom dama kontaan quoi sérieusement non dama gën a kontaan parce que man

yow yaay jënduwaay kii boo ko jëndee. yow wax yow c'est-à-dire yow lépp yow la lan ngay dem sa yaay nan ko dama la jëndal xottu. non non non dafa naa yow man ak yow vous savez que nous avons nos secrets de papa à fille waxtaan nañ ci ba pare je suis d'accord et je suis d'avis bu paree nga ni on va arriver yow ngay ànd jusqu'à l'agence nga wax voiture bi nga bëgg a jël ma jëndal la ko. kon naa ko sax bu ma toogee rek. xanaa jeex na mais eh il faut mettre ton permis à point là. dama ne. te conduis doucement. mu dugg ci benn doppi doom xam nga may bañ xëy woo ma ni ma dugg nga ci caniveau yi. papa hmm. waaye kaay nag ma wax la gis nga bag bi lan moo ci gën a neex a bi. ah maa la wax loolu. teel a bi sa papa teel a wàcc tey jii. waaw ci man. loolu kii moom xam nga kii moom ay mbiram man dama ko dul sàggane. et aujourd'hui xam nga a deux rendez-vous ma amoon dama ko soupçonné ma amoon envie gis sama yaram. waaw loolu mosoo kaa am. ah non non non. moo tax maa ngi bëgg a fiir sax. maa ngi bëgg non sama sama fille préférée la. waaye nag xam nga kii rek laa am. dafa xaw a soxla ah dama ne ko dañuy dem voyage man yow moom mu bañ. ah moom waaw nee naa ko voyage bi man kese la. yëpp waa li ngeen fi déglu eh, problème mi ngi bëgg a am. ce qu'on va faire tu vas aller en voyage après on va réfléchir le mariage. waaw d'accord incha allah. on va réfléchir le mariage. ba Kya lu mu bëggoon ñu waxtaan avant ñu ngi dem n'est-ce pas donc euh, du ma def loolu di la remercier parce que gis naa dernier moment yi dina enduré leen certes yor jëkkëru politicien mu nekk ci àll bi ci campagne yeeg yooyu donc nga nekk fii ci kër gi yow kese neexul tamit yombul du n'importe qui moo ko mën n'est-ce pas donc euh, yaa ngi fiy toog di muñ n'est-ce pas di ma jàppale tamit ci lu bari. surtout ça disna naa sa moroom femmes yi ngay encourager pour ñu jàpp ci élection yi sa mbokk yi nga xamanteni ni yaa ngi leen di wo donc loolu lépp nelawuma benn yoon maa ngi koy gis bu baax donc ma ni woon tey ma lay woo particulièrement di la remercier n'est-ce pas di la sant di la gërëm bu baax parce que gis naa ménage yu bëri yoo xamante ni genre yu mel ni ñoo ko tas n'est-ce pas su jëkkër day absenté wu gisatoo ko déggatoo ko mais yow quelque que soit alpha yaa ngi fii toog di moomu ñëw donc loolu lu rëy la loo xamante ni tey dama ñu woon bala ma bouger centimètre dama lay woo remercier la nest moom mënoon a woo say mbokk sax ñu toog fii ma remercier la dama koy def n'est-ce pas donc indil naa la benn cadeau dama ko fàtte wàccaale mi ngi sama saak donc loolu moom sa cadeau spécial ci toog gi nga toog muñ gi nga muñ di genre loolu dëgg la loolu sax dafa tuuti mais bon am na lu muy représenté ci man daal donc maa ngi lay sant bu baax di la gërëm lépp ci añ yi nga xam ne da ko doon conseillé yaakaar gis ma te gisoo ma ak yooyu n'est-ce

man nii rek laa nar a nekkee su ma añee du ma reer su ma reeree du ma ndékki dugub ji may mooñ sax maa ngi xalaat ndax dinaa am lu ma ci def ba dugal ko sama biir maak sama doom ay àdduna ah. waaye nag yàlla baax na maaleykum salaam yaay booy. naam. Thierno lay soxla. Thierno. waaye jàmm la sama doom. c'est la police. police.